sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mbooleem sant ñu santee ko ki nga xam ne moo ma fekk ci lëndëm dugal ma ci leer ku xott sama xol yi def ci yàlla ci yàlla sedd muy séddale muy Mawlaana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Niass yàlla nañu ko yàlla fayal ndax bés bii tey bés bu màgg ci mbooleem ummal islamiya bi ndax bésu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu koy màggal kon nag ñu xam suñu baay Mawlana Cheikh Ibrahim suñu sëriñ mi nga xam ne fonk gi mu fonk woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbëggeelu yonent bi moo waral lii tey mu am gaal yi di jógee fu nekk ndax première gaal bi ñëw sama baay Ibrahima Diouf mii nga xam ne tey fekke na ko nekk na ci ndaw ñu nga xam ne moo fekke woon Cheikh Ibrahima Niass moom bokk na bay bàyyi di ñëw foofu boobu gaalu moteur amul ay joow la parce que île bi tey suñ koy nettali kenn gënuma cee am expérience ndax bokk naa ci doomu Cheikh Ibrahim Niass boo xam ni mun naa wax ne maa taal naa fa faydu ndax tey ndaw yu suñ sawaree di yuuxu nii di def lii yëpp à cos de Cheikh Aboubacar Ibrahima Niass Baye Mbaye si waaye ci suñu baay ji nettali nañu jour ba fay baay di ñëw ak ba Baye foofu tamit ak ñoom seen gaal gi nga xam ne mooy première fois ñu déparé à 73 jugee foofu ñëw di gàmmu si fii te boo da janga doon joow wala nga takk ay sër gaal gi ngelaw li di ko yóbbu tey suñ demee ba am moteur muy ñëw mu nekkoon benn gaal tey dem ba nekk ay téeméeri téeméeri gaal la fay ñëw mu wóor na la ëpp na juróom benn junne nit wala juróomi junne nit mooy li Baye waxoon rek ne yéeg naa ci avion yi yéeg naa ci géej gi yéeg naa ci oto yi ñu ne ko Baye loolu yëpp lu ko waral mu ne du dara lu dul damm-damm lislaam yi ma jéem koo jéngal kon nag ko xam séeréer xam ko ci façon boo xam ni bari na jullit bari na ci yeneen mbokk yi waaye tey soo demee ci fu ñuy wax Gànjul de Baay dëkk boo dem da nga fa fekk ñëpp ay taalibe baay lañ te loolu bàyyee liggéey kon ñu ngi sant yàlla ci biir loolu li ñuy wax rek mooy alhamdulilah lii laa mënanteeg taalibe yi parce que man li may dund ak taalibe yi mooy dëgg maanaam man maay ñoom ñoom ñooy man sëriñ du kuy tëdd ci néeg di nelaw rek ñu naan fatu nga ca la ngay fatu xamuñ ko fatu benn moo fa mën a am ngay lekk di naan ay soxna tiim la wala ngay fatu di dugg xalwa waaye ku duggul xalwa heure boo ñëwee ñu naa la fatu la fatu nga taalibe bi bëgg laa gis te mënu laa gis foofu sëriñ amatu fa ànd ànd lay ngeen ànd ci yàlla ànd ci àddina ànd ci lépp loolu moom mooy sëriñ moo tax nag man lépp lu ma mën dama koy bàyyi ñëw fekkanteeg sama mbokk taalibe yi dund li nga xam ne ñoom laay dund ak ñoom. monsieur le maire wax na ci waaw loolu nag dafa am benn côté boo xam ne maa ngi koy ñaan monsieur le président de la république xam naa ne maag yow moom suñu waxtaan duy neex parce que fuñ toll maag yow ay dóorante ay xeer lañ ndax wax naa la ne la Kaolack laa am Kaolack laay tiitaroo Sénégal yëpp su yàqoo Kaolack baax moo ma gënal sama yoon nekkul si yeneen région yi ndax ku nekk fa nga am ngay tiitaroo lu ma am Kaolack laa koy indi su may sagu Kaolack laa koy sagoo rawatina na Baye xam nga tey lu mat juróom benn junney nit wala lu jege fukki junney nit dugg ci ay gaal di ñëw amuñ sécurité sécurité bu doy ndax monsieur le maire Badara Diom mi nga xam ne moo nekk jur na góorgóorlu na ren ba nga xam ne jël na ñaari vedette def ci ay ñoo xam ne ay gendarme def ci ñoo xam ne ay docteur lañ parce que ñuy ñëw waaye maa ngi ñaan président première fois ma lay ñaan loo xam ne yow laa koy ñaan yow président en tant que boo xam ni bokk kook ay mbokk sénégalam gëstu ñun ñun waa Ganjul ci gilet te dimbale ñu xam ne parrainé bi ñuy ñëw nii di ñëw ci géej gi day métti huit heures de temps ci guddi ngay daw amoo kenn ku la sécuriser lu nekk mën na cee xaj te su ci xajee responsable bi ñoom la kon balaa loolu di am nañ ci jël ñoom seen matukaay dimbale ñu ci gilet nañ ñu dimbale sax ci moteur ndax lépp rek nguur mën na koo dimbale ay askanam kon loolu ñu ngi ko ci ñaan beneen bi nag mooy gis nga de lu may wax toujours Médina baa ngi nii wax naa leen ko nee naa leen ren du ma leen wax gouvernement bi ci nii wala ca naa wala ca nangam nangam luñ def baax na parce que ñun man ndaw laa boo xam ne dama ànd ak jamono xam jamono nu muy doxee te lu may kaas pour Kaolack di ko kaas pour Médina suñu njëriñ la ñun ñëpp doomu Cheikh Ibrahim Niass suñu njëriñ la ñun taalibe Baye Niass waaye dama gis ne. lañu ñuy kaas di ko xeex am na ñoo xam ni gisuñ intérêt li nga xam ne tay ka sant Ndiaye ka sant Mbaye ka sant Weñ ka sant Samb ña fa nekk taalibe Baay yëpp nga xam ne lenn loo xam ne dañ ko fay def ñun ñëpp ñu bokkandoo ko ndax Baay ba muy tabax dëkkam ga daf ko tabax pour ñëpp bokkandoo ko ñu ciy jaamu yàlla mi la ay deux cent mille yooyu dafa war a jeex ci ñoom nit da nekk noobul mel ni MC Niass gëm ni milliardaire la gëm ni moom kenn sutu ko ci kaw suuf gëm sa bopp doo nit sëriñ du xaar ci addiir sëriñ doo dem di tukki di laaj wala nangam nangam